yàggal te wér Fall. yaa yaa jàpp gardien bi

tàllal loxo yi wàccal

Gel mamsel fal. Abban ya. Yanını bir

Parang pwede na. bàyyi lu la man di dalit na ko muñ nëbbu ndax yàlla moo ne ina saabirina nee li ci tegu nee bul nekk di jàgmbat ci moom mbiri àdduna am dama bëgg kër gu nàngam mag yu mel noonu yow daal melal ni yi bay na yadday xaasili melal ni néew boo xam ne dañ koo teg ci kanamu ñaar yi nga xam ne dañ koy sàng nee na wala turaat ilaa maa yuridu làkk wax yi naan wa baatini nee na bul nammul lenn lu nammul ci saay rek baatin luy sa bëgg sëriñ daal nay doon sa bëgg lu mu bañ nag nga bañ loolu nee na wala yuridu bi xawli ilaa bi salaasati xuwatin birisxin aw aqalin yuraqi ila rahman nee na yooyu nag mi ngi doon ci ñett yi nga xam ne moo koy kàttanal wërsëg ak ab xel boo xam ne nii da ko yéege jëme ko ci yàlla wa xawluhu taala wa ma xalaqtul jinna wal insa illa li yaabudooni nee na suñ borom nee bi mu nuy jënd dara taxul lu nit ak jinne kon nag xam naa sëriñ mbàkke mbàkke ngi ñëw kon naa ngi may leen ma waaw lam talbisoo laa man nag dama ko doon war a defaraat nañ laa talbisoo alxawrata bi saali maanaam bul fekk daal maanaam ni la ko waxee rek bul jël beñ ko di ko di ko war a sangu sa mu kaw xam nga ni day deñ maanaam ay abu léebu la wala talbisoo baxra bi xaw din maanaam bu bul bul jëm géej itam di ca xuus bu fekk nga yor loola muy wax suuf soosu بنوب دي ان خوسي گيج موني ولا تجعل العيون مثل ابار نانا بولين ديف ان بتي ديخ نين ديفاني داي ملني ولا بتي سيان ملني اي ان ديرت تولو وني موني ومن يبيع بالاخره فسوف يندم نانا كو ان كي دافا جاي ادنام جندكو الاخره ام خلصتنا رچ نخ يالا ان ولا الاخره خير وابخا nee na la mujj te des gën a des mooy àllaaxira lii lépp am poñet la loo xam ne ni jaaruwaay la rek kon li ñuy mu ne itam wala taq falool maala bi baabi dunia bu leen jël alal yi tëj ko ci bunt àdduna yi wa baabul axirati yi maftuun nee na te fekk na buntu àllaaxira yi nekk na di luñ luñ luñ ubbi lakum fi dunia mu ne laa tusaddiq nisaa dunia wa tansa nisaal ayaat nisaal jannat bu leen fekk can yu rëy yi ngeen di ko jox jigéeni àdduna yi bàyyi jigéeni àllaaxira yi muy oorul ay nii fekk jigéen ñu lay naa téeméeri junne ke nangam nga di ko ca def te fekk ne dawaloo ko ci la lay may oorul ay nuy ëllëg mu ni wala tafnu fa quwwatakum ilaa bi xidmatin rabbikum nee na bu leen jeexal seen kàttan ci lu dul yàlla waaw mu ni wa kayfa tutimuuna nisaa walam taxtaarul ab al asanaat nan ngeen di jëlee di jeex ci seen kàttan ci jigéen ñi nga xam ni dañuy jeex ci àdduna bàyyi ña nga xam ne duñ jeex mukk walam taxtaaroo am wala taxtaarul abakaar asanaat al wujul laati raxeetu na min al misk ña nga xam ni seen xeeti jëmmu ya moo gën a neex misk wala aynbar nee na wa kullu una la amataanu xayru raasin nee na ñoom ñëpp ña nga ak yére yoo xam ne du ràpp loolu lépp ci mbindum Seex Ibra la moo xam ni téere bi dem ba da koo def traduire ko anglais indil ma ko léegi yàlla dogal ngeen fekk ko ci moom it ci loolu laa fekkoon ba tax na ma man daal ci am lu ma ci mën a wax fii itam inna laa ashtara minal mu'minina anfusahum bi soom lahumul janna loolu moo doon tënk ñun Baay Faal waaw dañoo jël suñ suñ suñ bakkan yii jaayee ko jënde ko aaj lan tanaalul birra ñëwaat hattaa tunfiqu mimmaa tuhibbuun wa maa tunfiqu min shay'in min xayrin nee na lu ngeen lu ngeen dépassé du ngeen am lu ngeen bëgg mukk ndare ñàkkuleen ni ngeen a gën a bëgg biñ ko seeteeni na nag ñu ni la la gën a bëgg moo tax muy wax asalabtu nafsi loolu la ñoo ko firiroon ni yaa ibaadi wal maalu maali wal jannatu jannati wastarul maala bi jannati mu ni si yéen yéen yaa ibaadi yéen sama jaam yi maa moom alal alal ji sama alal la àjjana sama alal la kon jënd leen sama alal ci sama àjjana ji maanaam wut leen yoonu yàlla ngir ngeen am yàlla ndax lépp nee na maa ko moom nee na ayyuhal ixwaanu ahsarul iyaala wala jiraana nee na na ngeen wattal ni koloo di yedd njaboot gi ak ak kii ak maas gi waaw foofu daal loolu bokk na ci li nga xam ni ci laa yem xam naa gannaaw ay sëriñ saa ngi ñëw ak gëj na maa def yu mel nii sax xam naa na ngeen maa war a kafkin laay ndax maay directeur bi tey waaw kontaan naa nag ci yéen taxawaay beeg ak ni nga xam ne moom ngeen di doxee mbir yi muy muy jokkaloo nga xam ne dafay des ëllëg loolu moom lu ma sant la baaba mais nga xam ni ba Europe baaba Ndiaye fu ma mën a dem Europe mooy mooy filmer mook dem ba ñoom ñuy ànd lii ngeen di wax lépp léegi mu def ko ci Facebook bi yooyu moom it lay nekk toujours waaw ah lamfal poyocom waaw jërëjëf ñëpp ci yoon wi rek waaw uh, li ñuy wax rek maanaam garab laak dàtt bi rek maanaam dafa sël jëm nii waaye ñëpp bokk fu ñu wuti waaw lépp ci sëñ bi rek yàlla na sëñ bi taxawal boppam bis bi ngeen ñëwoon dana ngeen jàmm tuyaaba borom borom bis bi nga xam ne moom lañ ko doon defal muy Serigne Cheikh Fall Baye Góor né à Dakar mille huit cent mille huit cent mille neuf cent euh, mille onze mai mille neuf cent dix-huit nga xam ne moom ko defan ca Parc France ca Ndakaaru mu ñu kuwaat bi muy nelaw yàlla dogal mu defaat mu nelawaat Ndakaaru ñu koy màggale Sam Fall fii daanaka ñu ngi ci fanweeraat dafa naa li ak juróom kon loolu lépp xew-xew la yoo xam ne nii ngeen dajale ko di ko denc di ko gëstoo ko laaj mu am njëriñ lu ne yàlla ni yàlla fay njëriñ yéen itam sant nañ bu baax waaw ñii lay itam mbokki administration ñoom sàndarmay Taif yi ak yi nga xam ne ñoo jógee daara ñoo ñëw pour sécurité xam naa sax seen coobere la na duñ leen demandé waaye nag xam nga ñoom ak bëgg moom euh, yàllaa koy def ci nit man damay bañ sonal nit ñi moo tax du ma du ma du ma annoncé du waaye teewul ñoom ku ci nekk yaa ngi def sa warugar man lii war na ma yaa ngi koy def muy lu baax ba tax na ñoo ngi leen sant ñoom itam ak seeni i kilifa samay rakk yi sama baay bi sëñ Cheikh sëñ Fallou ak sëñ ngeen jógee sëñ ñoom ñëpp ak ñi nga xam ñoom laa bàyyi saam damay jaabante ki ñëw rek waaye fu ci nekk daal nit ku def feeñal nga sa yéene mbaax na ñu suñ borom defal taw feex sama mag Ini maju juga mau siapa? Kita sama pada di depan mereka. Terima kasih. Chicago. topp ko topp ko Assane topp ko ba la jënd ko. ginnaaw arrière leen rek yéen arrière leen rek. ndànk rek ndànk rek. def leen ndànk ko fan. Bara lu vert li ma war a toog moom

jàll bu jàll soxna si. toog rek da ngay téye. Danke FIFA. Di ñaan yalla nga yagg ci téwël On con